leeraloon nañ ci li ci aju ci borom subhaanahu wa yàlla bii li muy kii nangam et ci jotaay bii weesu commencé woon nañu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko incarné ba gis ne euh, yonent bi dafa melowoo ak nguur ndax moom maanaam te ndax yàlla da ko dafa yónni ab malaaka mu tànnaloo ko diggante mu nekk nabiyun malak malik wala abdul rasul mu nekk yenent boo xamante ne maanaam euh, euh, maanaam dañ koy day nekk buur wala bokk ñu def ko ab maanaam jaam boo xamante ne dañ koy yónni yabal ko ci nit ñi wala boog yabal ko ci mbindeef yi euh, moom mu daal di tànn nekk ki nga xamante ne moom mooy yenent bi nga xamante ne maanaam dañ koy yoo yabal ci nit ñi waaye nag mu feeñal ak njaam te bañ a feeñal rek bañ a feeñal nguur gi loolu nag day wane ni kon nguur maanaam moom mooy ne yent bi sallallahu kon ràngoo na tur yàlla boobu di almalik waaye nag bugg bugguloon feeñal tur booba la nga xam ne moom mooy euh, tànneefam mooy matu toroxlu ci feeñal melok njaam ci gu mat sëkk euh, niki noonu feeñal na maanaam feeñe na ci nguur googu ci jël bi nga xamante ne moom lay jël kóllëre yi maanaam comme ni nga xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa ko jël teg ko ci place boppam jël loxo yent bi sallallahu alayhi wasallam teg ko ci place loxoy boppam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon ci aaya bi naan innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una allah yadullahi fawqa aydihim ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaayanteeg yow xamal ni ja yàlla dong lan jaayanteel ndax loxol yàlla mi ngi ci seen kaw loxo loolu nag li nga xamante ne mooy euh, Euh, lii fi mu amee rapport ak nguur gi moom mooy ne euh, euh, mooy ne loxol yàlla maanaam dafa am maanaam maanaam buur déjà moom mooy ki nga xamante ne moom la ñuy fasanteel kóllëre gi gën a mag te bu yent bi sallallahu alayhi moom la mbindeef yépp walla ci anam bu gën a jagoo jullit ñépp fasanteel maanaam kóllëre gi gën a mag sallallahu alayhi wasallam maanaam te ci bunt boobu al imam ash-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu bindu ci téere bu am am solo am solo euh moy al-Mawathiq wal Uhud voilà maanaam di ay kóllëre yo xamantene ak ay yu ñu fas ci ak yent bi sallallahu alayhi wasallam mooy le pacte engagement yo xamantene mom lañu defante ak yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh niki nonu kon euh loxol le fait yàlla ne ko yow ku jaayanteeg yow allah ci boppam la jaayanteel loolu gisoon nañ ko ci ne kon ba pare teg ci ne yadullahi loxol yàlla fawqa aydihim moo nekk seen kaw loxo te loxol yonent bi sallallahu alayhi moo doon mooy tegu ci seen kaw loxo loolu yëpp day firndeel ñu ne yàlla dafa teg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci place am ci turu allah waaye ci turu malik tamit ndax. Euh, li koy firndeel mooy li nga xamante ne moom la ñu tàmbale woon ci di leeral ci jotaay bi weesu mooy ne bu ñu xoolee ci aaya ak xadiis yi nga xamante ne moom la ñu indi day tegtale ci anam gu leer ci ne allah ci ne yàlla ci boppam maanaam almalik en tant que almalik allah en tank que almalik maanaam yàlla bi nga xam ne moom moo incarne nguur gi maanaam nekk boroom buur nekk buur bi ci turam boobu dafa euh, dafa jaayante dafa dafa lu euh, euh, mu tuddati dafa euh, daf ko incarné ci loxo maanaam loxo yàlla maanaam boo foo ko fekk da gis ne day am rapport ak nguur ak yàlla loolu gisoon nañ aay yi nga xamante ne ay aay kay xadis yoo xamante ne ñoom ñoo koy firndeel ah ak lëkkale ki nga xamante ne moom la comme tabaraka allazi bi yadihil mulk qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in et cetera maanaam di tegtale di tegtale maanaam relation boobu léegi Euh, commencé woon nañoo gis yenn ci ay ci ay exemple comme fi mu ñëwee ci alxuraan comme par exemple Euh, ak yenn xadis yi waaye ci bunt bi nga xamante ne moom lañ ko ubbi parce que ci alquran la ñuy basé woo bu jaree ñu indi xadis ñu indi ko te li ëpp sax ci xadis yi ñu waroon indi daanaka indi nañ leen ci bunt boobu ci fi muy waxee naan loxol yàlla ci fi muy baatu loxol yàlla ci surtout surtout ci wàllu jaay maanaam ci wàllu dépensé bi mu naan wa qaalatil yadu yahuudu yadu yadullahi maxluula yahuud yi nee nañ loxol yàlla day dafa lemu dafa dafa dafa kuuñ dafa banku ay ghullat aydihim ñoom la seen loxo banku mooy comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee ci yahuud yi seenu nay loolu ñëpp xam nañ ko wa lu aynu bi ma qaalu te rëbbeef na leen ci li nga xam ne moom la ñu waxoon na te loolu li muy tekki mooy lan moom mooy euh, mooy mooy mooy ne mooy dépense bi maanaam loxol yàlla dafa banku li muy tekki mooy dañoo nay loolu lay tekki li koy firndeel nag moy ñaari aaya bu njëkk bi mom moy bi nga xamantene mom la wax ci sooratu Ali Imran naan laqad sami'a allah qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia yàlla dégg na do wallahi ginnani dëgg dëgg yàlla dégg na kàddu wax ñi nga xamantene ne yàlla day dafa nek ko xamne dafa dool te ñun ñoy ñi nga xamne ñun ñoo dañoo dañoo womal woomal borom subhanahu wa ta'ala Euh, ci aaya boobu ak rëbb gi nga xamante ne moom la leen rëbb ci sababu wax jooju noonu mooy wane ne maanaam même wax ji maanaam mooy li maanaam loolu lay firndeel waaye am na beneen aaya bu koy gën a firndeel bu nekk suuratul Isra bi mu naan walaa taj'al yadaka maghlulatan ilaa unuqika walaa tabsuthaa kullal basti fa taquuda maluuman mahsuura maanaam bul nekk koo xamante ne da ngay tàllal sa da jël sa loxo di ko euh, lem ko max maghlulatan gis nga mu bu ko même baat bul jël sa baat bi lem ko ko ci sa kaw mu mu jëm ci sa kaw ci sa ci sa ci sa sa loos ci sa doq maanaam boo jëlee sa baat léegi teg ko ci loos bi ni maanaam mooy ne mooy nanguwoo joxe waaye maanaam mooy bul nay kon waaye wala tabsutha kullal bast bu ko tàllal gépp tàllal ndax fa takkoona malumun mahsura parce que soo ko defee danga nga nekk koo xamante ne euh, euh, dañ lay ŋàññ ba pare nga nekk koo xam ne da ngay rëccu da rëccu euh, loolu Euh, loolu de loolu moom mooy kuy kuy kuy kuy kuy kuy joxe rek di dépenser rek te du seet du du xool dëgg-dëgg li mu war a joxe dépenser ak yooyu kooku souvent de après day rëccu ki nga xamante ne tamit dafa lem loxoom loolu tamit baaxul kon loolu loolu lay wax kon lu loolu mooy firndee ni loolu lay tekkee parce que sikk nekkul ci ne jubluwu ci ne di wax yéen tamit sama naan ko bul jël sa loxo def ko nii rek parce que loolu sikk nekkul ci ne wax ko loolu. li mu kon maanaam bi dafa dafa dafa leer maanaam wax ju majaas la day loolu tamit aaya boobu day tontu ci anam gu leer ci wax ne alquran dafa am majaas et dafa am majaas majaas muy tóog maanaam mooy sens figuré euh, leneen li nga xamante ne moom moo koy euh, ci aaya yooyu noonu nga xam ne ñoom ñooy wax wàllu ci wàllu loxol yàlla maanaam euh, comme fi ci biir na boo xoolee alquran daf bal yaa daahuma sultataani li fi nekkee mooy ñaari loxo mi dañoo tàllalu maanaam comme li nga xamante ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ne yad ah daan ne ba kul ba yadaahu yaminun ah daan ne mal ah maanaam kullu yadaahu mal yàlla loxoom yi dañoo fees dell maanaam maanaam mooy dañuy joxe ci xadis bu nekk sax imam muslim rahimahullahu sayyidina abu hurayrata radiyallahu taala anhu léegi bu ñu xoolee tamit ba tey dañuy gis dañuy gis Euh, ne kon foofu loxo maanaam ci joxe gi lay def te xam ngeen ni moomeel gu rëy gi am am goo xamante ne da ngay mën di joxe noonu rek noonu sax loolu buur moo koy def maanaam buur moo yor moomeel googu wala boog ki nga xam ne dafa am kon bu boobaa day dugg ci malik day dugg ci malik waxoon nañ ne malik ak malik ay lan lañ ay maanaam mutaraadifaani lañ maanaam ay ay synonyme lañ loolu waxoon nañ ko voilà duñ ay synonyme parfait mais ay synonyme la c'est ay synonyme lañ quand loolu waxoon nañ ko ci jotaay yi bi maanaam yi weesu ba leeraloon nañ ko maanaam ci jotaay bu njëkk bi ci ci ci ci al ci tur bi ñu yegsee ci tur bi almalik maanaam ci jotaay booba leeraloon nañ ko walilahi alhamdu wal minna léegi ci eh, bu ñu xoolee tamit dangay gis eh, borom subhaanahu wa dafay jëfandikoo baatu eh, yat comme fi muy waxee ci naan maanaam ci waxe ma bindu moom Adama alayhi salaam yaa iblisu maa manaka allaa tasjuda bi maa xalaqtu li maa xalaatu bi yadayya yow iblis ana lan moom moo la tere ngi sujjóotal koo xam te ne man maa ko bind samay loxo foofu loxo day daal di tekki maanaam ba pare daal di sama ñaari loxo laa ko bindee maanaam loolu dafay tekki eh, kattanu borom bi subhaanahu wa ak xéewalam maanaam ak tamit maanaam barke bu spécial boo xamante ne moom moo nekk ci mbind mi moo tax bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne eh, yàlla dafa eh, bind maanaam maam Adama alayhi salaam ci loxoom ak eh, àjjana yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk njëmbat ga yooyu tamit ci loxoom la ko bindee. ak tawraat tamit mu daal di bind mu bind lu ci nekk maanaam ak loxoom maanaam lool day day wane spécificité yi sinon leneen lu ci nekk ci bindum loxo ci loxo yàlla la ko bindee te spécificité boobu ak barke boobu ak xéewal gu rëy googu loolu moom moo tax mu ne daf ko bindee ak loxoom maanaam mu ne da ko bindee ak loxoom sinon ñëpp borom bi subhaanahu daf leen a bind waaye parce que maam Adama alayhi salaam dafa am spécificité spécificité bi moom mooy lan moom mooy comme ni nga li nga xam ne noonu la fa iza sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuhi gis nga sawaytuhu mooy dama koo dama ko euh, yemale maanaam dama ko modeler harmonieusement moom dama ko yemale yemale maanaam bind ko bind mu rafet daan ni fa na nga ma daal di euh, wol ci moom sama ruux maanaam. loolu nag la fait que moom maanaam doomu aadama alayhi doomu aadama maam aadama alayhi salaam loolu moom la yàlla bindee loolu noonu spécifiquement maanaam euh, ruuxu nga xam te ne ruux moom ruux bi ko yàlla def ci moom ruux la bu spécial boo xam ne bokkut ak yeneen ruux yi nga xam ne ñoom euh, ay mbind ci mbind dañ leen a bind ci mbind la lañu sosoo loolu nag moom moo wuutale maanaam doo doomu aadama ak keneen ko du doomu aadama te loolu day spécifier maanaam mbind moomu noonu te loolu noonu le fait que ngay tànn di am ki ngay defal barke di ko teral di ko kii et cetera loolu moom mooy nguur parce que moom mooy kii def lu ko neex kese kese kese kese kese ak moomeel loolu yëpp da ngay gis ne day delluwaat ci nguur maanaam day delluwaat ci kattan day delluwaat ci xéewal te loolu moom mooy moom day delluwaat ci nguuram Euh, te te te te te te te loolu yëpp boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko cee da da da ko cee doon ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit naka noonu la mel maanaam day joxe comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ah, ci xadis bi weesu ci bi ci jotaay bi weesu moom lañ mujjee wax yaakaar na moom mooy kaw kaw boobu nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo sédd lu bare bare bare ak tamit le fait que hadith bi nga xamantene naka jek dañ koy faral di wax moy ne yàlla mom moy seddel inna allah wal inna allah wal mota yàlla ay joxe wanal qasim tamen may seddel manam lépp lu joge ci loxol yàlla ci loxol yent bi sallallahu alayhi wa sallam lay jaar motax loxol yàlla moy loxol yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen feneen foo xamante ne masalan loxo ñëw fa moom mooy comme comme fi mu naan euh, wassamaa banaynaahaa bi aydin wa naa la muusi'uun asamaan si ñun dañ koo bind ak ay maanaam ak bi aydin ak loxo maanaam mooy ak doole ak kàttan te loolu moom mooy tegtale ne maanaam xam nga nguur nguur gu taxaw dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ak ay ay ay ak ay ay ay ay ay ay euh, ay et cetera yoo xamante ne dañu xam ne moo tax boo xoolee nguur buur yi àdduna bi yépp képp ku fi mës a nekk buur boo seetloo ah comme pharaon yi firawna yi boo xoolee tabax nañ maanaam bàyyi nañ fi seen empreinte ci édifice yi ñu fi def boo xoolee même ñi nga xam ne ñoom ñooy français yi boo xoolee buuru France yi nga xamante ne moom lañ gën a am ak Angleterre ak feneen mooy da ngay gis ne comme ñii ñoom ñoo defar château sàngam wala ñoo defar édifice sàngam maanaam yooyu noonu borom bi nag subhaanahu wa taala nguur gi maanaam nga gis loxo relation bi mu am ba tey ak. ak nguur gi te loolu la wax ne Seydina Daawuda alayhi salaam wax na wazkur abdanaa Daawuda zal fàttalikul suñu ah, jo do nga xam ne moom mooy Seydina Daawuda alayhi salaam moom borom loxo la maanaam borom kàttan la maanaam borom nguur la loolu lay tekki parce que voilà hmm? wa saxxarnaa maahul jibaala maanaam kon nga gis ne eh, ay ay nga xam ne maanaam. Eh, voilà euh, euh, euh, ne dañ ko tàggatalal ji doj yi picc yi et cetera ñu ñëpp ñuy sàbbal maanaam kon nga gis ne zal aydi boobu mu doon wax maanaam moom la développé fii te loolu moom mooy borom kàttan la borom nguur la maanaam mi ngi noonu yonent Yàlla Suleymaan alayhi salaatu wassalaam té kon soo xoolee nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo leen ëpp nguur ñoom ñëpp yonent bi nguuram daf koo feeñalul neen ngir nan amna hadith bu ko wax ngir buggul woon buggul manam ndax ñaanu yonent yalla sulayman ibnu daud alayhi salatu wasallam motax tax buggul woon feeñal geneen nguur wala ñaanu yonent yalla sulayman alayhi salatu wasallam bimna rabbi ah رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب يالا جيغل مو تيغا جخما نغور بو خامتيني دو كينن دوتول يلو سي كينن كو خامتيني سما غيناولا نده ياو ياي كيغا خامتيني ياو ياي جوخي فوالا فسخرنا له الرياح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل له بناء كل له بناء وغواص فوالا مانام غيس Euh, kon yàlla tàggatal ko ngelaw li tàggatal ko lépp maanaam voilà loolu ci loolu yent bi sallallahu alayhi wasallam ci barke yent bi la ko amee mm-hmm. nga xam ne même seytaane yi sax ñu ñu koy tabaxal ah, di ko et cetera ah, di ko di ko nuural ci biir géej gi ci biir ah, eh, ci biir géej gi et cetera nga xamante ne kon moom maanaam borom subhaanahu wa ta'ala da koo tàggatal loon maanaam loo xamante ne maanaam lépp lu aju ci ngelaw li lépp lu aju ci jiir ji lépp lu aju ci géej gi comme ni nga xamante ne noonu lañ noonu la ko aaya yooyu di junje ah, euh, te yooyu yëpp day tegtale maanaam nguuram ni mu yaatoo woon te yent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke bi la ko amee sallallahu alayhi waaye tamit euh, ndax ndax moom yàlla daf leen a jox maanaam ay uulil aydi rek lay wax wala ay aydi rek lay wax waaye bu dee yenent bi sallallahu moom dafa ne yadullaahi maanaam ne loxol yàlla la maanaam kooku xam ngeen ne duñ benn du benn euh, euh, aaye hmm, su ma su su fekkente ne kii nañ gis nañu maanaam lu ci ëpp ci aaya yi nga xamante ne day wax ci wàllu euh, ci wàllu loxo ci alquran gis nañ ko xana benen bi ci dess moy awalam yaraw anna khalaqna awal awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun xana gisuñu ne awalam yaraw xana gisuñu anna khalaqna lahum ne bindal nañ len mimma amilat aydina ci li nga xamantene suñu loxo yi ko def muy ama am an'aman ay jur fahum laha malikun ñom ñu daat koy mom manam nga gis ne kon borom bi subhaanahu wa taala li mu li mu defar ak mu ne ak sama loxo maanaam moom laa moomale doomu aadama yi ce qui veut diir que ni euh, doomu aadama yi yonent bi sallallahu maanaam ñoom dañuy gis dañuy taxaw taxawaayu maanaam daanaka loxol yàlla dañuy gis dañuy taxaw taxawaayu loxol yàlla ngir nekk le fait que ñu nekk aadama na maanaam nekk doomi aadama maanaam nekk ñoo xam te ne kojug maam aadama alayhi salaam te xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam maam aadama alayhi salaam ci moom la jóge comme ni nga xamante ne loolu gisoon nañ ko ci jotaay yóle na ne maam aadama alayhi salaatu wasalaam maanaam yent bi sallallahu alayhi ci la juddoo ci ci bi la juddoo sallallahu alayhi wasallam ci za ci baatin sauf que ci zahir moom moom mooy maamu yent bi sallallahu alayhi maanaam mais loolu mooy maam yi jëmm ji mais nekkul mais jëmmi yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo copié wu jox maam aadama alayhi salaam jëmm euh, kon euh, kon loolu mom moy euh euh kon momel ba nguur gogou non mo gis nga fahum lahaa maalikun ah naka la ko sax awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aaman fahum laha malikun wa dhallalna wa zallalnaahaa lahum faminha rakubuhum wa minha yaqulun wa lahum fiha manafi'u wa mashaaribu afalaa yashkuruun maanaam gisoo mu ne eh, eh, yàlla ne defal naa la ba pare mu ne wa zallalnaahaa lahum ñu toroxal la leen ko maanaam ñu ñu ñu maanaam ñu ñu assévir leen pour doomu aadama yi fa min xaa am na ci ñoom pourtant ñoo gën a rëy doomu aadama yi ëpp leen doole ëpp leen kàttan waaye rakuubuhum seen waruwaay lañ nii war na doomu aadama di war animal boo xamante ne maanaam njur ndundit mooy animal boo xamante ne moom nit moom moo ëpp animal boobu te pourtant borom borom bi daf ko daf leen a toroxal wàccee leen de telle sorte que ba doomu aadama yi dañ leen di mën di jëfandikoo noonu fa min ah, fa zallalnaahaa lahum fa minhaa rakuubuhum ñu yenn ñi ñu ciy war wa minhaa ya'kuluun ñeneen ñi ñu ciy lekk ñoo xam ne dañ leen di lekk mais ñoom ñoo ëpp doomu aadama wala ñeneen ñi ñoo gën a tuuti doomu aadama et cetera te pourtant am na yeneen yoo xamante ne dañ fay nekk mu ne walahum fiihaa manaafi'u am na yeneen njariñ yu ci yuñ ci am mais yooyu jur gi lay wax maanaam jur gi anaam mooy jur mooy jur gi bokkut ak ndund ci ndundit mooy animal jur moom mooy bétail bi mooy mooy les bestiaux hmm. voilà ñoom du ñu benn voilà moo boo xoolee gëléem ak nag yu demee noonu ñoom dañ leen di war dañ leen di war di leen liggéeyloo boo xoolee lan euh, ñu euh, euh, li ñuy lekk ñoom ñu dañ ci lekk dañ leen di lekk ñoom xarak et cetera ñoom duñ leen war ak yooyu ba pare am nañ yeneen i njariñ maanaam lu demee nekk euh, suuf maanaam leen gi ñu mën a jëlee ci ñoom. Ah, euh, voilà ak der bi voilà maanaam ak di ci defar ay yére ak ay ay ay fauteuil et cetera hmm. wala mu fexe na wa masharib ak lu ñuy naan wala wala ah, mu ne wala waa afala yashkurun xanaa duñ sant yàlla. bi nga xamante ne yàlla li mu defar ak loxoom moom la leen defal mais loxo foofu noonu tegtalewul ah, maanaam day tegtale maanaam ak préoccupation bu spéciale maanaam ak yittewoo mais yàlla dafa bind ñii spécialement pour doomu aadama voilà te loolu yëpp da ngay gis day delluwaat ci nguur gi ak ñi nga xamante ne ñoom la moomal maanaam ñi mu moom te moom mooy doomu aadama yi ba pare mu moomale leen leen maanaam kon loolu yëpp day delluwaat ci nguur gi boo ko seetloo day gis kon maanaam ci gàttal daal bu ñu xoolee aay yi ñëw di wax yet di wax yadu loxo maanaam boo ko xoolee da gis ne dafa am rapport relation bu sew ak nguur comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee woon ci njaalbeen gi ci yadullah ci naan euh, euh, bi yadihil mulk ak euh, sub ak ak fa subhaanalladhi bi yadihi malakutu kulli ak ak qul man bi ci malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sa yaquluna lillah daañ ne wax ne la yàlla la euh, loolu nag lañ waxoon ne maanaam masala la bu ama am solo boo xamante ne gis gisuñu ci ñu jiitu koo xamante ne leeralal leeralal na ko ci ci ci buntu bi walla alhamdulillah euh, euh, bii bunt kon kon kon yenente bi nag sallallahu alayhi wa sallam comme ka axzin la hoo ka axzin kim jàpp la hoo ñeel ko uhuda ay kóllëre uhuda ah, ahli nubuwati maanaam eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy bo ñooñu nubuwa maanaam yeneen nekk yeneen ñu nekk yeneen alayhim salaatu wasalaam borom bi subhaanahu wa taala dana maanaam kon subhaanallah ñu dellu si wat ci wàllu loxo bi kon ñu ñu leeral foofu benn mbir maanaam kon da ngay gis subhaanallah Euh, loxo kon dafa ëmbalé lu bare bare manam té loolu nonu borom subhanahu wa ta'ala diko diko diko wax diko tuddu muy melok borom bi subhanahu wa ta'ala bo ñëwé ci doomu adama han ah, so ñëwé ci doomu adama yoy loxo di jarign da nga gis loxo bi da koy jarign voilà waye batay manam ci ci ci haqiqa ak ci majaz yi motax ñu ci xaqiqa ak ci majaas maanaam ci réalité maanaam loxo day jël di def di liggéey di kii di yëkkati di teg di kii et cetera mais loxo tamit ah dafay dafay moom day moom comme ni nga xamante ne ni naan euh, euh, euh, voilà lii ci loxol diw la ne voilà nangam ci loxol diw la ne.

voilà wala ñu ni diw yoon tek na ko loxo yooyu yëpp buñ ko waxee da ngay gis ne baatu loxo yimi muy tekki yëpp soo ko day duggaale ci walu nguur am am manam ci nguur lay dugg ak moomeel légui nak ci bir day tekki mën na tekki ay xéewal parce que ki mom moy joxe parce que buñ lay joxe et cetera hein ki mom ki ki ki mom yor wala yor nguur manam dal en tout cas yi ñi def yëpp ak loxo manam soit ci sens première bi wala ci sens figuré bi yoy yëpp. bu ñu koy def ak kii lañ koy defe maanaam day day day day nguur daal lay imposer yenente bi nag sallallahu alayhi moo tax bi ñuy jaayanteeg moom ñu jaayanteeg moom ak loxo ndax loxo mooy loxol yàlla. kéem nag yenent yi alayhi salaam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ne yenent yi alayhi salaam comme ni alquran wa idh akhadha allahu mithaqa an-nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la wa la tansurunna wa akhastum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashalu wa ana ma'akum min ash-shahidin wala borom subhanahu wa taala ne fàttalikul yow yent bi lolou gisone ñu jotaay bi wess ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam kóllëre googu kon dañ koy jàll muruural kiram yonent bi sallallahu alayhi wa Euh, kóllëre gi nga xamante ne moom la ko borom borom bi dani ko woon dafa ne fàttalikul période bi nga xam ne parce que loolu moom mi ngi koy fàttaliku gisoon nañ ni loolu lay tekki mais euh, fàtt boobu nga xamante ne man ak yow euh, sax comme loolu waxoon nañ ne li bokk na ci lim ko teg comme fi mu naan ay waskur axa aadin xaw ma fàttalikul mbokki aadi bi nga xamante ne ah, maanaam mbokk aadi maanaam moo yent yàlla Huud alayhi salaam iz anzara qawmahu bil ahqaaf bi nga xamante ne mu ngi waar xeetam bi ci fa ñuy wax ahqaaf boo xoolee tamit euh, mi ngi wax naan euh, comme par exemple euh, fële ci hmm, ci sourate Al Imran <laughs> ay ay ay ki bi yu wax ci say waxat voilà non en tout cas ala kulli xaal loolu événement la boo xam subhaanallah et en plus gis nga keroog dañoo dañoo pare rek ma toogaat xalaat aaya bi ñëwaat sama xel waaye ni aaya bi dama demaat na subhaanallah voilà voilà loolu symbole nguurug yàlla la lu ko neex lay jël lu ko neex lay teg voilà voilà euh, léegi kon yonent bi sallallahu alayhi yàlla dafa jàppante moom ak moom kóllëre ak yeneen yonent yëpp alayhi salaam ni leen yéen ñëpp ay yonent dinaa leen yónni ci kaw foofu mais yonent bi su ñëwee mu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ngeen ko gëm par force bu ñëwee day indaale loo xamante ne day dëggal li ngeen fi indi waaye yéen ñëpp ku mu fi fekk ci kaw suuf nanga nga bàyyi la nga nekkoon nga dem topp ji ko voilà est-ce que di ko dimbali bu fekk te te maanaam na ngeen ko dimbali na ngeen ko dimbali est-ce que d'accord ngeen lii man taxaw naa kóllëre gi man maa ko seede man yàlla d'accord ngeen ñoom ñëpp ñu ne d'accord rek yàlla ne kon leen man ma ànd ak yéen seede ci biir moom xoolal kóllëre googu loolu moom mooy wane ne yonent bi sallallahu moom taxaw ca kaw ñëpp jaayanteeg moom yeneen yëpp jaayanteeg moom 124000 yëpp. alayhi salaatu wasalaam waaw ndax nabi yi na wax kon 124000 yëpp ñëpp jaayanteeg moom loolu loolu lu rëy rëy te loolu moom mooy wane ni moom mooy buur yonent yi alayhi salaatu wasalaam te mooy seen kilifa. voilà moo tax mu waxoon waxam jooju law kaana Muusa ibn na wa Iisa ibn Maryaama xayyaani lamaa wasa'ahumaa illaa an yattabi'aani voilà xadis bu nekk ci Sahih la Yonent bi sallallahu alayhi wa ne giñ naa ne Yonent Yàlla Muusa alayhi salaam ak Yonent Yàlla Iisa alayhi salaam suñu nekkoon di dund amul dara lu ñuy mën a def lu dul mën a topp sama ginnaaw loolu rek rek mooy seen port mooy seen kii de sortie hmm. seen issue benn issue la ñu am mooy topp sama ginnaaw voilà segam ñooñu la waxuma laa ñeneen te loolu moom day wane day wane incarné bi mu incarné almalik yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon mooy sarirul muluki mooy mooy gànnuwaayu gànnuwaayu almuluk buuri waaw maanaam gànnuwaayu buuri gànn mooy mooy seen trône ndax dañ koy wax sarir dañ koy wax arsh arsh mooy turóon mais sarir maanaam lu fait que muy mel comme comme genre lal ndax day ngand maanaam euh, turóon wu buur day ngand du du nekk comme chaise bu ndaw ngandam chaise lay doon bu yaatoo yaatu am ay kii mel ni lal moo tax ñu naan ko sarir kon lal maanaam koy mooy gaanuwaay gàggu naay gàggu naay gàggu naay saxfula gàggu buur yi min fuyudaati ci bëb bi mulkihi nguuram la maanaam nguuru yenent bi sallallahu alayhi yeneen trône nguur yépp ci gàggu naayam la bokk la jóge loolu moom moo tax loolu moom moo tax te comme moom mbiram mooy naasiril xaq bil xaq yenent bi sallallahu alayhi mooy naasiril xaq bil xaq mooy kii dimbali dëgg te di ko teg rek ci dëgg loolu moom moo indi nguur nguur bu fekkente ne dafa tegu ci injustice rek day instable même bu dee ay jullit ñoo yor nguur gi mais bu tegoo ci ci ci ci dëgg même bu dee ay yéeféer ñoo ko yor nguur gi day stable ndax lan ndax trône nguur yi maanaam lii tax muy stable xam nga moom mooy trône nguur yi donc mooy symboliser stabilité am wala dafa aju dafa aju ci maanaam ndax dafa jóge ci bëb baayu nguuru yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te moom mooy naasirul xaq bi xaq kazaalika noonu al arsh arsh bi ngeen di dégg arsh buur yàlla arsh boobu noonu bu mag fee mag a mag a mag ci mulki yi la jóge gis nga arsh ay arsh la arsh benn arsh ay arraché arraché arraché arraché arraché arraché arraché dafa am nak lu ñuy wax al arshul azim wala ko al arshul karim ñu nan ko al arshul majid dhul arshil majid rabbul arshil karim rabbul arshil azim alquran ñëw na ci yeb waye mom arash la maam dañ koy melale ay ay attribut attributs wuti han waaye arash bi nga xamante waaye loo boobu moom la ñuy wax ne boobu la ñuy wax arash boobu boobu beneen boobu beneen boobu moom beneen arash boo xamante ne euh, malaayika yi nga xam ne ñoom ñoo ko mooy juróom-ñett yi ñoom almuhayyamuuna lañ tu leen tudde dañ leen di wax tamit alkurubiyuuna wala karabiyuuna maanaam mooy malaaka yi nga xamante ne ay euh, euh, malaaka la ñoo xam ne dañoo jeex tak ci yalla lool mom ñoom juroom ñet malaaka yoy seen xol dafa jeex tak ci bëgg yalla moy muhayyamuna moo tax ñu tuddee leen loolu muhayyamuna manam moy dañoo ngeelum ci sopp gi sop sopp yàlla loolu nag mooy afraad yi ndax juroom motax ñoñu ak juroom ñet afraad yi dañoo nuru na juroom ñet afraad yi tamit non lañ mel dañoo muhayyamuna lañ dañoo jeex tak ci sopp yalla ba nga xamante ne gisuñu leneen xamuñu leneen lu dul yàlla moo tax afraad yi noonu lañ mel ñoom xamuñu leneen lu dul yàlla leneen loo leen wax xamuñu ko voilà <laughs> loo leen dugal xamuñu ko yàlla daal lañ xam jeex na léegi <laughs> euh, arash am na kon arash boobu amna arash motax ci xam-xam yu aju ci arash ak arash yi ndax ben lañ wala yu bari lañ wala yoy lool da bok ci xam xam nitu yàlla itam wala moy xam xam adadul urush wala hal hiya wahid wahid aw aw kaseera wala am isnaani wala kaseera et cetera manam arash da ndax ben lañ wala waaw kam arash mom ñu existé ñaata arache yi juróom-ñaar malaaka kay kii nu mu tuddati. juróom-ñett mooy arache bu mag moy moy moy bi ñu wax. bu mag bi le plus grand. voilà voilà boobu tamit da am ay spécificité yoo xamante ni yu wutul euh comme 70000 pieds yi mu am voilà. arache boobu 70000 pieds. yo xamantene ne euh, diggante ñaari pieds yu nek 70000 dix mille ans ñoo dox ak yu mel noonu. loolu yooyu moom yu nganda nganda la loolu nganda nganda la boobu arash <laughs> bi moo nekk moom moo plafonné àdduna bi c'est-à-dire que boo jëlee suuf si après asamaan yi ngay dem ñaareel asamaan ñetteel ñeenteel juróomeel après ci kaw kursi yu moo fa ne après kursi yu nag arash moom la xalis bi naan boo jëlee suuf si nga sànni ko ci asamaan su njëkk si day mel ni boo jëlee jaaro bi nga sànni ko ci désert Sahara bi boo jëlee suuf si ak asamaan bu njëkk bi nga sànni ko ci ñaareelu asamaan si noonu lay mel nga jël ñaari asamaan yi ak suuf si nga sànni ko ci ñetteel bi mu mel noonu noonu nag ba ca juróom-ñaareel ba soo jëlee juróom-ñaari asamaan yi nag ak suuf si nga sànni ko ci kursi yu kursi yu moom mooy piédestal kursi yu ñu wolof moom la maanaam euh, kii kii euh, euh, tubaab chaise la koy wax mais piédestal la en fait moo nekk ci suufu arach foofu mooy place administration mooy tadab mooy mooy tadbiir foofu mooy place comme tey moom mooy naan bu mooy primature. Mm-hmm. foofu mooy place boobu. waaw ñu noon mati ñoo tubaab yi <laughs> ñoom mati ñoo lañuy foofu <laughs> mooy arash foofu nag la ndëg ñaari euh, maanaam euh, euh, arash maanaam ñaari xad alxadamay ni ci ñaari arash yooyu maanaam foofu lay wàcce ngir mën a def administration parce que administration mais ci arash lay jóge pour wàcc foofu mooy alxadamay ni maam liñ naan ñaari tànk yi ñaari dëggal tank borom bi subhanahu wa ta'ala lol leral nañ nango ci eh, voilà muy qaf <laughs> et cetera mais arash kon arash moo symbolise harf bo qaf euh arash arash manam moy moy ñaari tank moy moy moy kàttan gi hein ah, ak nam nam gi katan gi ak nam nam gi administration bi yëpp ci loolu lay aju moy katanu yalla ak nama-nama yalla ci lay soppee lepp ci lay lepp euh, ci tour rahman ci lay yemo ci arash arash bobu nak moom mo nek li plafoné aduna bi waye dafa plafoné aduna bi nga xamantene fi la mais bala nga yegg arash ci digënté kursi yi ak arash ak ay ay intermonde yu bari ñi ngi ci voilà ay kiray yu bari bari ngi ci ay intermonde et cetera Euh, mais arsh kon moom moo gën a kawe moom moom moo supplanté lépp foofu la ñuy wax ne fala àdduna bi yam arsh waaye àdduna bi fala yam waaw mooy mooy kursi après kursi mais après nag c'est dafa am beneen yeneen xabara mooy laahuut ak haahuut moo tax comme laahuut ak haahuut bokkuñu ci euh, ci ci ci ci li nga xamante ne moom moo aju ci ci ci ci voilà c'est-à-dire dafa xam nga xaaxut ak laaxut boo xoolee ay melo yu bon maanaam xaa la ak allah allah ak huwa maanaam nga gis ne ci turu yàlla yi la maanaam foofu dafa dafa dafa dafa transcender xelu doomu aadama yi foofu xelu doomu aadama yi daf daf ko dafa weesu xelu doomu aadama yi donc looloo tax ñuy wax naan arash fa lay ci la bind bind bi mais sinon ci ginnaaw arash am na yeneen moo am na yeneen kiiraay ay yeneeni intermonde yu fa am yoo xamante ne benn bu ci nekk ca gannaaw ca gannaawam maanaam ba ñu weesoo yooyu yëpp ci la foofu la jabalu xaaf ne mooy montagne boobu nga xam ne mooy montagne wala yi et cetera voilà ci ci ci ci ci njom wartalu xaaf nag ci la aalamu ra ci la arraqaa ne aalamu arraqaa foofu la ne foofu nag ca njom ga nag foofu la albarzaxul kubra moy maqaam moy maqaam maqaam Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wala mom lañ wax ci marfu anqab fi barzakhil kubra makaanatu arshikum wa janaahukum yaxshal wujuda rajai mutalaqiyan li fiyaadi zati nabiyina wal anbiyaai min al wara min al wara wal waaw min al wal anbiyaai mutalaqiyan li fiyaadi zaati nabiyina wal anbiyaa ilal waraa min waraa i ilal waraa min waraa i ok voilà foofu mooy barzaxul kubra mooy place Cheikh na Tijaani radiyallahu taala anhu voilà maanaam ci jëm montagne Kaaf boobu ak alamu raqa foofu foofu la ñoom ardu simsima nekk ak garabu Touba ak yi nga xamante ne ñoom et ak yeneen yeneen mbir loo xamante ne yu doy war yu doy war yoo xamante ne yooyu ci xam-xamu awliya yi kibaar yi la bokk maanaam voilà euh, euh, euh, loolu moom moo tax ngay gis maanaam même wali yu mag yoo xamante ne du ñu xam existence su niveau ak existence yooyu affaire adduna boobu ak ya fa xew yoo ah, xamuñ ci dara parfois sax dañuy dund ba dee mosuñu ko dégg <laughs> wala mosuñu mosuñu ko imaginer yàlla na yàlla sàmm léegi nga gis kon foofu kon euh, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu foofu la foofu la foofu la siège am nekk mooy barzaxul kubra foofu léegi euh, léegi makaana maanaam maanaam euh, kon kon loolu moo tax ñu wax kon ar ma kon day symboliser nguur borom bi subhaanahu wa nga xamante ne ala ci arsh ak mais aussi bo xolé fenn fu ci euh arsh bu ne arsh bu nek kon euh, manam aras bu mag bobu day moy moy bi bi bi peeg àdduna bi bi nga xamante ne mom mu xet mom dafa dafa pek dafa cerner univers bi àdduna bi manam asamaan yi ak source waaye ginnaaw loolu arash arash yi danoo bari arash yi bari am na arash par exemple boo xamante ne euh, dañ koy indi yowmal xiyaamati pour yàlla di ci àtte àtte teg teg jugement bi maanaam nga xamante ne euh, boobu tamit arash boobu tamit juróom-ñetti balaaka ñoo ko yanu waa jaa arabuka na ne ko wa wa yaxmilu arsha rabbika yawma idin samaniya war yaxmilu fawqahum ah waaw wa yaxmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya voilà sa arasu borom subhaanahu wa ta'ala bis booba juróom-ñetti ñoom ñoo koy yanu mooy juróom-ñetti malaaka lañ tamit yoo xamante ne ñoom ñooy yanu aras boobu te aras aras boobu nag moom dañ ko fay teg pour ñaari mbir bu njëkk bi mom moy moy ker bi nga xamne mom rek kay am ker fofu rek kay am ker ñaareel bi ci dess mom moy pour symboliser nguru borom subhanahu wa taala ngir àtte ngir mëna a voilà lool moy wajaa arbuka wal malaku safar safar sa borom dana dik ak malaaka yi ñu def ranger manam malaaka arash arash bi moy tim ñëpp ñu gis ne arash bi tek nañ ko ñëpp di gis pour maanaam turun bi pour ñu mën a àtte ñëpp ñu àtte leen voilà euh, am na euh, turu yàlla yi ni raxmaan yéem moowee ci arash bu mag bi turu yàlla yi tamit benn bu ci nekk da am sa arash voilà benn bu ci nekk da nga am sa arash voilà comme ni nga xamante ne noonu la ñu wax ne ar ar rahim mooy arash bi nga xamante ne moom la moom mooy mooy yem moo ci arash xolu ñan ñi nga xamante ne ñoom ñooy nitu yàlla yu mag yi ah par exemple aljamil moom mooy yemoo ci xolu ñi nga xamante ne ñoom ñooy mooy ñooy mooy mooy muhibbuna yi al muhibbuna mooy ahlul mahabba ñi nga xamante ne ñoom maanaam euh, lenn lu ci nekk daal maanaam ci gàttal tur yàlla bu nekk am na arash boo xamante ne moom ngay ci ngay ci ngay yemmooy euh, ndax euh, euh, léegi tur léegi boo xoolee kon nguuru nguuru borom subhaanahu wa moom moo nekk maanaam moom moo ci ci ci kon arash yooyu yëpp nag da ngay gis arash yooyu yëpp nag maanaam li ñuy bëri bëri bëri ci nguuru yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam incarnation nguur parce que nguur mooy yem moo ci arash ce qui veut dire que ni moo tax ngay gis ne kon baatu Malik tur boobu tur la boo xamante ne dafa làmbaale lépp loo xamante ne lan la jëf yi la comme ni ñu ko gisee woon maanaam lépp loo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala ak jëfam daf cee feeñ rek te mooy lépp rek turu Malik mu moo incarné moo moo moo lool maanaam nga gis ne kon ci nguuru moo incarné nguur gi ci jëmmi boppam mulk mulkullaahi moo incarné mooy nguuru gi yàlla tur bi nga xamante ne moom moo aju ci loolu mooy malik voilà wal kursi yi ni ki noonu kursi yu comme waxoon nañ ko sànq hmm, mooy e, fi ñu fi ñuy teg tànki yi bu buur bi xam nga bu day am kii bi trône bi mais day am fu muy teg tànk moom piédestal bi loolu repose-pied dañ koy wax tam repose-pied loolu tamit ci barke ci ci euh, bëb bi nguur yent bi sallallahu alayhi lañ ko bindee ni ki noonu naari al sawara sawara bi nga xamante ne képp ku en fait sawara ci yéen barke yent bi lañ ko bindee sallallahu alayhi wasallam ba pare day symboliser nguuram parce que ñi ñu fay dugal mooy ñi ko ñi mooy ñi ñi ko nangul ñi ko weddi ñun lañ fay dugal ak ñi nga xam ne ñu moom wala ñu ko bañ wala ñu koy moy ñooñu la ñuy dugal biir sawara kon sawara ci nguur gi maanaam da gis ne faydu la ci fuyu daati mulki nabi sallallahu alayhi wasallam faydu la ci fayu fuyu daati maanaam bii wane symboliser nguur gi yent bi sallallahu alayhi wasallam wa jannatin maanaam mooy moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy kon li ñuy terale ñi nga xam ne ñoom ñoo nangul yent bi sallallahu gëm ko wala ñu di ko topp kon ne ku nekk selon sa degré comme ni mu nekkee ci sawar yooyu yëpp dañuy symboliser nguurug yent bi kon sallallahu alayhi wa sallam moom nag moo tax ñaar yooyu la melowoo maanaam dafa melowoo ñaar yëpp moo tax ñu ne bashirun nazirun bashirun mooy day bégalaat maanaam kon moom dafa ñëw di annoncer nit ñi di leen wax kii maanaam buur buur pour mu mën a yor nguur foo fekk buur boo xamante ne dafa tàng fu mu toll day day répression rek lay def nguuram du du du yàgg. révolution lay indi waaye foo fekk buur boo xamante ne dafa nooy lu neex waaye def moom mu toog rek di xoole foo kooki nguuram du yàgg maanaam faw mu boole ñaari côté yooyu yëpp moo tax yent bi sallallahu alayhi wasallam bashirul mooy kiy sa saxal ci di bëggalaate di wax gaa yi way topp leen def leen lu baax boo leen ko defee di ngeen dem àjjana waaye def leen lu baax ngeen jaar ci yoon bu baax bi ngeen jaar ci yoonu yàlla si seen ngeen nekk ci ndaataatallëx àdduna ak àllaaxira ngeen nekk ci ay xiiwal et setera et cetera kon mooy bashirun waaye nag nazirun mooy ki nga xam ne muy xuppaate di waaraate voilà di dellu si nit ñi naan leen def leen ndànk boo leen deful lii da ngeen dem sawara boo leen deful lii lii dana leen ci fekk et cetera musiba dana leen fekk nangam nangam maanaam nga gis ci biir le fait muy nekk koo xam ne day bégalaate di waaraate di xuppaate da gis daf cee incarné waale maanaam même bu fekkente ne moom buggul feeñal nguur gi da nga benn parti ci buntu boobu dina ci feeñ dégg mooy basmatul xaqi basmatu mooy basmatu moom nu ñu koy waxee ci wolof waaye ci tubaab moom cachet lañ koy wax walla empreinte nu ñu koy waxee ci wolof nag am lañ ah, walla tampon lañ wax waaw te tubaab la voilà ah. mandarga. ah. nekkul mandarga. mooy mooy mooy signe waaw mais maanaam bi nga xam ne maanaam mooy yàlla miy dëgg. yonent bi sallallahu mooy empreinte am mooy cachet c'est-à-dire lépp loo gis ci univers bi secret univers bi yépp yonent bi la sallallahu alayhi wasallam te loolu mooy day symboliser nguuru yàlla moom mooy ki nga xamante ne kon empreinte maanaam fépp foo dem ci mbindeef yi mais moom danga koy gis muy euh, loolu gisoo gisoon nañ ko ci. Hmm? Euh, voilà dégg nga kooku gisoon gisoon nañ ko ci bas basmatal arshi wal xaqaa'iqi turra kaabatal xalqi zaabil istisnaa yi yent bi sallallahu alayhi wasallam ci ci jawaahirul xaqaa'iqi daqiqa ne yent bi sallallahu alayhi wasallam yow yaay yow yaay empreinte di cachet cachet wu mbindeef yi seen empreinte maanaam arash bu arash ndax arash turu yent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ci bind mom moko taxawal moy secret bi niki nonu mom moko ci ci fuyu daat nguru genti bi la sallallahu alayhi wasallam ci la amé comme niñ ko gissé te mom moy kon basmatul arsh wal khalaq way mindi fi pa turan ñom ñep kaabatul xalqi moy ki nga xamantene moy kaaba bi nga xamné mindi fi yep ci mom lañuy wer wërlo moy centre moy xolu univers bi te za li mo wax bi lastisna naa amul ben sété amul exception voilà ci fuyu daatu mulki yi la amee yëpp moo tax dangay gis day delluwaat ci fuyu daatu mulki yi voilà maam ci fa faydu nguuram euh, euh, mooy ki nga xam ne mudhish mooy ku ku téyeey loo nit ñi téyeey mooy jommal mooy ku ku jaaxal kenn téye yi mooy joom mi maanaam dem ba nga xamante ne xamatoo ci loo ne mooy daxsatul daxsa daxsatul moom mooy ak téye yi mooy mooy mooy mooy mooy xaw mooy mel ni joom mi naam nit ku xam dafa gëlëm joom mi xamatul parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam nguuram dafa rëy rëy goo xam ne moom ci boppam dafa imposant ci lépp ba de telle sorte que dafa jommal ñépp voilà waaw yiim mi euh, euh, yiimu muy téye yiimu mais boole ci ak léeg-léeg day jaxasoo ak xeetu jaaxle ak jommi voilà muy téye hmm? te loolu ci mboolem euh, mbindeef yi la noonu la leen meloo surtout ci xadara yi surtout ci xadara yi nga xamante ne mooy xadara nitu yàlla yi dañoo xam yent bi parce que su dee awaam yi ñoom xamuñu ci dara ñoom donc ñoom du seen seen mais euh, ma par exemple mbindi yeneen mbindeef yëpp xam nañu maam ci nit ñi jinne yi awaam yi ñoom xam nga loolu xamuñu ñoom duñ tëy yi ñoom tëy yi du leen du leen ci dal voilà mais boo demee ci xadara yu kawe yi foofu ñooñu ñoom ñëpp dañoo xam màggaayeen bi saa ñoom af moom da leen a jommal da leen a da a da a jommal ndax lan ndax ndax dafa imposant ngir nguuram voilà mom mom mom lañ wax ci jawaay xaqaaiq daqiqa bi ñuy wax ne anta faydul ghazirati wa malikul hadarati wa zubdatu da'mari huwa ma'ul huwa ma'ul ghuyubi aynu hayatin li qulubil amajidi ruqama'i voilà anta faydul ghazirati ومليك الحضارات وبهجة وزبدة الدماء هو ماء الغيوب عين حياة لقلوب الأماجد الرقماء وبحور المحبة قطرات منك يا قبلتي وبحر ندائي وأوكي كون ينتي بي صلى الله عليه وسلم موي كيغا خامني ني yow ياي ينتي بي ساسا ياي كيغا خامني nga ياي ne ايو bu boy bi nga un dafa univers bi dafa dafa fess delu fi te mi ngi symboliser ci le fait que nga nek malikun nañ malik ak malik voilà malik muy empereur voilà muy empereur mm-hmm. bour bi nga xam dafa ci malik. yeb malikun bi waaw wa zubdatu voilà yow yaay quintessence yow deug deug buñu xolé ndox ndox mu bari moomu te doy waar nga xam ne ñëpp ci la ñuy seetloo nitu yow yaay ndox mu ma maanaam yow yaay bi waaw parce que wax jooju comme baat boobu dafa tumranke te dafa dafa da mën nañ ko bañ a xam moo tax ñu foofu ci bi ci tegu mooy waaw maa ul moom mooy ndoxu kumpa ndoxu kumpa yi nga xamante ne mboolem kumpa yi maanaam mystère yi. nga xamantene euh moy mystère secret yi mystère ruhi mystère xol yi ak ci nek ci univers yeb yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ndox mi nga xamantene mom mo len di dundal aynu hayatin kon mom moy tiosanu dundin moy tiosanu vie la source de la vie aynu xa li qulubil waaye nag moo ci xolu mom moy dundal xolu ñan al amaajid ruqama amaajid mooy ponkal ñu ñu tedd yooyu kawe yooyu mooy ar ruqama mooy nitu yàlla yooyu nga xamante ne seen xol dafa dem ba gisutuñu dara lu dul yàlla seen xol dafa set ci lépp lu bokkut ak yàlla waaw voilà waaw euh, ñoom dañoo am caractéristique bu afra mën nañ ñi ci afraad yi lañ bokk mën nañ ñi ci afraad yi lañ bokk parce que bu ñu ñoo nga xamante ne seen xol dem dafa dem ba génne ci lépp lu bokkut ak yàlla amin waaw lépp daf cee set parce que lan parce que da ci ndox moomu ndox yent bi sallallahu alayhi moom la ñu setale seen seen seen seen seen bakkan seen seen xol seen xol mooy li ay nu xayaatin moom moo dundal moo tax seen xol dafay dund fu mu toll xulubil amaajidir ruqamaa voilà dégg kon yent bi sallallahu alayhi wasallam <coughs> mooy kiy téereeloo ñëpp zimaamul waraa mooy ki nga xamante ne moom moo mooy yor euh, maanaam mooy njiital mooy moo yor goju goju moom mooy goju mbindeef yi maanaam seen euh, euh, kii gis nga volant mooy seen volant mbindeef yëpp yonent bi sallallahu alayhi mooy seen volant loolu mooy nguur gi parce que ki nga xamante ne yaay volant <laughs> mbindeef yëpp yàlla waaw mooy chauffeur bi mooy volant bi en même temps bil husni waaye lépp ci taar la moo tax nga gis àdduna bi yëpp taf rafet taar wal akmaliyati ak anam gi nga xamante ne maanaam ko mbir yi gën a mat

amul ordre lu organisation voilà organisation administration motax euh, décentralisation mais bour bi mom kenn imposé wu ci univers bi volant volant euh, gouvernail voilà gouvernail plutôt voilà gouvernail donc mom Euh, moo tax euh, moom tamit maanaam wax jooju moom la ñu doon wax ci ci jawaar xaqaayiqi daqiqa di wax naan hmm, malikan lil kamali anta jamilun wa imaadul akaabiril uzama yow mi nga xamante ne yow yaay yent bi saa saam yow yaay buurug mat yaay nguurug mat la perfection donc le roi de la perfection parce que nguur nga wax nguur gi nga yor da nga incarner perfection à travers tout l'univers parce que moom yenn saa saa mooy ruuxu univers bi mais fépp daf da ngay gis dafa imposer perfection maanaam da gis ne nguuram dafa parfait ma ni kan lil kamali anta loolu moo tax ak a ngaa rafet moo tax dafa rafet ci biir ak ci biti ci zaahir ak ci baatin sallallahu alayhi wa imaadul ba pare moo yaay keno yi akaabiril uzma yi ponkal ñu ngan ni ñu nitu yàlla yu kaw yi yaay seen keno yow imaam yow yaay seen wiiruwaay way nga kon mo ne bu huurul xiyaari majmaul fadli day wa kha'ul xuluudi ra'sul lutfin wa haybati bu huurul xiyaari yow yaay kii taaral waaye jommal maanaam jommal ñi nga xam ne ñoom ñooy tànneef maanaam borom gëneel yu rëy yi maanaam borom yiw yu bari yi bokk walla yow la yow yaa leen yow yaay seen yaa leen jommal yow yaay ki nga xamante ne yaa leen di taaral tamit maj ma alfa parce buur ci dëkk moom buur maanaam bu bu gaa yi ñëpp maanaam bu ñëwee ci kanamu buur bi dañuy wàcc majma'ul fadli yow yaay daju bar place bi nga xamante ne mboolem ngëneel yi foofu lañ dajaloo moom la sëñ bi doon mu la ñu waxoon sëñ bi moom la doon wax radiyallahu ta'ala anhu raamal waraa nayla fadlin musri'ina lahu al fadlu 'inda rasulillahi qarraaru waaw falaa bi sa falaa taqisu ibnu abdallahi bil fudala falaa عبد الله بالفضلاء ابن عبد الله فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سنمار رام الورى نيل فضل المسرعين له والفضل عند رسول الله قرار بولين ا آه،, آه،, آه. بولين yemale fala taxiisu am moo tax ah, wa huwa raisu fala taxiisu <laughs> ah, ah, wala non non voilà dana fa huwa nafiisu voilà mm-hmm. moom yonent bi sallallahu alayhi mooy ki sell ci bépp anam mm-hmm. kon nag fala taxiisu way way way bu leen ko gam-gam way waay waay bu leen koy jéem a comparer waay bu leen ko dendale waay waay waay bu leen ko nattale waay fala taqisu wa war ra'isu mu ndax moom mooy njiit lil ambiya jël yant yëpp alei sa salam mooy seen buur mooy seen chef gis nga dee lu si wax ci nguur gi ñu doon wax ah, fee nag mu ne kon nag bu leen voilà Taqis ibn Abdullah bil fudala ci borom ngëneel yi maanaam moom mooy maanaam pour def lien pour wane ne lien bi am ci nguur googu chef bi ak ngëneel yi dajale gi mi ngi nii kon moom ndax kat euh, boroom ngëneel yu rëy bu leen leen lu ñu rëy rëy bu leen leen comparer jamais jamais jamais jamais ak yent bi de sallallahu alayhi ah ah lu tax mais parce que innal kawaakiba yukhfiha sinmaaru biddiw yi lu ñu leer leer leer te leeri ngir jant digg njolloor da koy nëbb borom ngëneel yu rëy yi lu ñu rëy rëy ngëneel yonent bi sallallahu alayhi mooy seen jant diggu njolloor bu feeñee biddiw fa soo ko gisee rek c'est parce que gisuñ jant bi <laughs> waaw waaw mooy ka annahu shamsu fadlin hum kawaakibuhaa yuzhirna anwaaruhaa linnaasi fi zulami li imaam al-Busayri wax radiyallahu ta'ala anhu voilà ah mooy wax ji même bi la kon nag mu ne mu ne euh, raamal wara nit ñi nag daw nañu mbindeef yépp képp ku yàlla bind rek dangaa daw nay la fadlin di wuti ngëneel maanaam dangaa namm bokk danga raama dangay namm hmm. nay la jot ci alfadl ngëneel ba pare musri ay na la ñoom ñëpp di daw di ko njëkkante waaw ñii di ndaw ñi di maanaam ku yàlla bind rek bëgg nga am ci faveur yi ci ngëneel yi et cetera di ko wuti ji ba pare di ci daw di ci njëkkante di ci rawante waaye rawante boobu li muy metti metti metti metti metti wal fadlu ngëneel ak mboolem li mu ëmb inda rasulillahi faf ndawal yàlla lii yent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam fa la sax ngëneel dafa dem ne hey man kii nag man ci kii daal laa laa féetewoo jeex na moom moo tax yenn saa salaam mooy majmaul fadl mooy dajawaay ngëneel day xamul gaynde la parce que buur léeg-léeg foog mu yor jikkoy gaynde te pourtant yenn saa salaam mooy mooy ki dajalay ngëneel yi ba pare di leen séddale ànd ak loolu yëpp dafa dafa nekk gaynde aussi maanaam njàmbaar gi nga gis xare yi mu daan xare comme ni ñu ko gisee ak et cetera parce que buur ak buur nguuram bu ko taxawalee. faw faw mu am doole moo tax puissance bu ñu naan dëkk bi puissance la am puissance la foo ko déggee mooy am na am nañ armée parce que bis bu ñu amul armée duñu nekkati puissance yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon doy xaman waxaa ul xuluud yi gis nga xaa gi nekk ci alxuluud di imp di di maanaam gi gi impose maanaam gi tele sax moo tax yonent bi la sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam moo tax maanaam ak sax ci moom la tàmbalee muy début wu sax maanaam la perpétuité wala l'éternité ci yonent bi sallallahu alayhi wa la tàmbale c'est-à-dire que nguuram googu xam nga nguur dëggu nguur moo tax yeneen nguur yépp ñu bare nguur parce que saxuñu entre autres yonent bi nag sallallahu alayhi nguuram moom dafa sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du follee ko abadan jamais waaye mooy rasul lutfin moom mooy njiital ñeewante ak i lewet la douceur la compassion ak lewet ak nooy yonent bi sallallahu moom moo ci mën ñëpp mooy njiit mooy chef bi waaye wa haybati ak ak ak tëyu mooy charisme charisme tamit mooy chef bi côté yooyu boo xool rek yonent bi sallallahu mooy chef bi waaw xam naa dañuy dañuy dañu am foofu jotaay bi di ñëw insha allah dinañu bokk ci li ñuy war a leeral aussi entre autres insha allah mooy euh, euh, euh, incarnation bi insha allah maanaam ci biir nguur gi ba tey ak tur bi ak tamit parce que tur bi relation yi mu am ak yeneen yi xam nga loolu commencé woon nañ ci wax waaye daan ci gën a am luñ ci jot yaatalaat ci wàll googu parce que boo xoolee moom mooy beneen tur bi ñëw ci sootu Fatiha ci tur ci ci ci ordre bi mu ñëwee Allah rahman rahim rabb ak malik ordre boobu ah ak ni mu leen ëmbee euh, insha allahu taala tamit dinañ wax ci wàllu euh, tour bi maanaam voilà ni mu nekkee euh, relation bi mu am ak lool mais ak huwa bi mais ak yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam mu ñëwee noonu ak maanaam mu ñëw incarné waale nguur googu moo tax voilà ak ak yi ci aju insha allahu taala yooyu di dinañu dinañ ko ak tamit nit ki nan la koy incarné nit ki nan lay incarné tur bi maanaam voilà parce que loolu tamit euh, loolu ak ak nan la koy maanaam nan la koy incarné mooy li mooy li aju woon ci at euh, at taxaquq wa taalluq voilà maanaam incarnation ak attachement waaw nan lay attaché woo aussi ci tur bi yooyu insha allah kon ci jotaay bi li ñëw ci loolu la ñu war a wax insha allah balaa ñuy dugg ci euh, al beneen tur bi mooy al kon ñoom foofu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati